السلام عليكم ورحمة الله بكي نيلان يدلن زيار لن بالحق أن برمي سبحانه وتعالى مبالي جغل ني يو تسنيو دروس رمضانية رقم السادس أن يعني إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره qawlu akthari al ulama wallahu a'la a'lam mbindum koor sixième numéro bi mu ne gone bu matee muskallaf ci diggu weeru koor su boobaa day woor li des ci weer wi waaye du fay li weesu boroom xam-xam yu bari dëppoo nañu ci wax ji yàlla mooy ki xam lépp xale bu fekkee ne dafa mat muskallaf mat muskallaf ci maanaam dem ba weer wi sori loolu mu yëg ni moom mi kat yëg na li naan ku ko yëg rek muskallaf nga yëg na ko ba mooy wane ni moom mat na muskallaf te bu matee muskallaf dafa war di war léegi nag fekkee ne tàmbaleegul wan war li des ci weer wi da ko war a woor fekkee ne fukki fan la da koy woor bu dee juróomi fan la da koy woor bu dee fukki fan juróom la da koy woor bu dee benn fan la sox daf ko war a woor waaye it li nga xam ne weesu na ko du ko fay moo xam li ko weesu doon woor di di dog wala woorul woon benn du fay loola en tout cas li ci kanam rek lay fay ci fekk muy doog a toll tomb toll ci koor loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu mooy suñu bindam tey yàlla defal dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah azim li wa lakum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته